Dakar notre ak Franc ak Sox dëmb ci arène nationale bi lu tax ñu war faa dem mooy dafa am ku ci ñàkk bakkanam mu am ñaari version ci ay information ñii ne waa police ñoo ko dóor grenade lacrymogène police ne non ci kérosène yi ñu doon taal ñoom ah mooy yooyu ñu yor di ko taal ci estade bi. boobu moo explosé ci kanamu booy bi booy bi yaakaar naa suma juumul 23 ans la am xaw ma kooku loolu moo explosé ci kanamam mu jaare ca faatu ndax démb amoon na incident bu am ci arène bi ñëpp di ko ñaawlu jël ay siège di yàqate di sànnante ay xeer yooyu pour man làmb war na weesu image bu mel noonu. lan lañ sànni mu ne. Euh, grenade lacrymogène la nit ñi wax ni moom lañ ko sànni loolu amul waa police weddi nañu ko. non police sax nañ lu leer. man du sax bu police parce que man ki toogoon ak moom. waaw ah. moo ma wax. pétard yi ñu sànni woon. bee ko jam fii mu ngoo loolu la police wax. loolu la ñu wax ki toog ak moom kay. ki toog ak moom filmé na ko sax. ma ne ko lii moom jarul sax génne. kon nag léegi pétard la pétard. information bi na ñi di génne naan police la police la police la bàyyi leen police ñoom defuñu ci dara sànniwuñ lacrymogène ci nit ki pour mu faatu mais juste li Ndeye Gueye wax moom la waa police wax donc kon am na keneen ku indiwaat preuve am lu leer nañ ku dend ak moom moo ko wax. donc mais daal li ñuy ñaawlu chaque jour jumboole da koy faral di wax fii ci làmb ji mooy dafa am lu des lu bari ci côté organisation bi je crois que ni ngi ciy insister ba tey ñu ngi gis ay failles yoo xam ne mu ngi firndeel ni sa wax ji am na solo te mat na di dellu si waat démb amaat na incident bu garaaw. ci làmb nga làmb. Mhm. taayal di ko wax chaque jour. Mhm. parce que pas diw boo gis booy diw lay gunge. waaw maa ngi gërëm papa diw. waaw maa ngi gënal père bi. waaw père waaw mais père moomu nekk ci làmb ji lu tax mënuñu ko organiser ko ba pare kaay ma la benn affaire si làmb. Mhm. gis nga làmb. Mhm. sécurité yi nga xam ne ñoom ñooy sécuriser làmb. Mhm. ñoom sax ay ngànnaay la ñuy duggaale. d'accord pour man làmb ak kull ku ciy dugg pour nga nekk garde corps wala dara wala police ak ñi ñuy dugal waroo yor lenn lu war a mën a gaañ nit parce que nit ki bu fay ba pare di torox. ba pare nit yuy dugg dañ leen war a fuyee ba lañoo dugg ku ci yor lu mën a lor nit ñu teg ko nee mais dañ lay bàyyi nga duggaaleeg yooyu après ñuy nekk di détail Aliou gis nga euh, Sénégal xam nga lan mooy problème bi su doon tubaab yi day am assurance booy bi boo bu fekkente ne dee na foofu xoola hmm. dañ koy topp ba mu jeex xoola Real euh, kii Real Liverpool bi waaw gis nga problème bi bi fi am. waaw incident boobu waaw. da xoola ba léegi ñoom ñu ngi topp affaire yi. dañ koy leeral. bërki démb euh, kii Kaza ak kii yu Tëngéej. ñoo xeex xeex bu metti ba xaañante. ci sport. Mhm. kenn lijjantiwu ko. président yi sax waxuñu ci. gis nga bi wakaam jeu kii euh, naka la tudd euh, Mbour. Mm-hmm. mu am ay décès. booy baa ngi noonu. Mm-hmm. xoola biñ dajawaatee. Mm-hmm. ñoom ñaari équipe yi buñ dajawaatee dañoo waroon taxaw bala ñoo football fàttaliku ne am na ñii ñaari équipe yi daje woon nañ am na ñu ci génn àdduna wan nit yi ne bala ñoo football li amoon bëggatuñ mu am mais biñ leen dajawaatee ñu football dañoo ñëw rek football dem seen yoon mel ni seen daje amul woon effet làmb itam dañoo war a fexe ba képp kuy dugg ci làmb doo yor arme. ñii garder làmb ji tamit du ñu yor lu mën a gaañ nit léegi-léeg da ngay gis supporter di supporter ñu koy dóor dóor ah. oui yow nga dem fay ba pare jël liif munul nekk voilà làmb neex naa organiser man mii dong mun naa ko organiser barke rasulullaay làmb mooy lu gën a neex a organiser mais làmb damaa defa ni dañ ñu ko bëgg a yàqal parce que mooy suñu sport national booy dañ daan tekk ci làmb wel-wel sponsor yi dañu daan ñëw wel-wel mais léegi lan moo nekk ci làmb man sax daf ma ëlëm. jar naa laaj de. yaa ngi dégg. waaw mais problème bi mooy nañ fexe ba ga xoola wax naa la ko nee naa la stade bi bu nekkee nii dañoo war a teg ay barrières yoo xam ne yow sa di barrières yi ak ak bi day nekk ay kilomètres boo ñëwee ñu fóoyee la foofu ba pare boo waree jàll ñu bàyyi la nga jàll. loolu yomb daa réglé Aliou. Mhm. mais da ngay ñëw ba sës si stade bi ñu lay laaj laaji béeg yu kenn xamul moo tax léeg-léeg booy dañuy sànni xeer nga gis estade bi di toj gis nga ñuy couvrir làmb dañoo war a teg ay barrière mu wër ñoom ñu taxaw ca barrière yi gis nga sécurité xam nga lan la balaa balaa ngay yegg si balaa dara xew balaa ngay yegg si la mais bu nit ki yegsee ana sécurité waxal bu fekkee teg nañ barrière mu wër police yeeg yëpp taxaw ci ginnaaw barrière boo ñëwee war a dugg ñu ubbi fooyee la nga jàll kuñ seet nga jàll kuñ seet nga jàll est-ce que mun nga fa jàllale dara. te buñ nee la acca da ngay tëb barrière waxal. doo ko tëb bu njëkk ba tey saako yi ñuy def làmb bu njëkk ba ay barrière la woon bu ñu mësaan a tëj barrière yi amoo fooy dem pour dem ci biir làmb gars yi nag daanañ sote barrière yi dem mais bu ñu tegee saako yi yaa ngi dégg. Mm-hmm. saako yooyu ñu teg ni fii la ñuy yem saako yi rek mun na leen a wan boppam. saako yooyu ne fii la ñuy yem mbëre bi su amee lii affaire yooyu supporter tamit war nañ ko mën a tegal règlement man d'accordu ma ci ku dee yàlla na rey mais supporter ñëw làmb ba pare am sax gaañu gaañu làmb da nga daan takk or ñëw seetaan làmb da nga daan sañ sa ñëw seetaan làmb indi sa indi sa oto bu rafet seetaan làmb mais làmb ñu ngi koy bëgg a yàq. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. waaw mu mu muy lu doy waar donc Ndeye Gueye looy wax ci kii boobu le temps que may jot journaliste bi nga xam ne mooy Abdou. moom wàccoon na ci terrain bi demoon na ci këru ki nga xam ne moo faatu am na fay information mu gën ñu koo leeralal. waaw maa ngi koy euh, ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko aljana ndaxte bu xamoon ne bu demee stade li moo koy fekk amaana du ca dem waaye yàlla moo ne woon àppam fii lay yem. Hmm. waaw may féliciter Franc di encourager sama sama sama sama sama sama doom sama xarit soq di ko encourager bu baax di jaale tamit aussi. Euh, parce que dëjëm boobu ba tey liggéey si ma muy Daba Boy. Mm, ajaratu Daba Boy sama xarit bu baax woon. Mm-hmm. koo xam ne daf ma daan woo téléphone damay ree bay bëgg a dee ay vocal la nii sama portable damay ree bay bëgg dee maa ngi ñaanal yàlla àjjana dina flaayam. Mm-hmm, amiin barke Cheikhul yàlla na ko sëñ Fallou mi bëggoon teeru. Mm-hmm, barke sëñ Fallou. ñu ñaan njabootam yàlla leen yàlla may xolu muñ. amiin waaw làmb moom. parce man pour man. pétard bokkul ci arme quoi pétard yi moom xale yi dañ koy kii defar seen supporters yi quoi. waaw mais làmb booy dugg ci buntu stade bi dañ lay palper loolu moom police mention spéciale dañ lay palper du dugg ak arme seetu sax du dugg briquet du dugg. parfum sax du dugg. parfum sax du dugg bant yi ñuy puudaroo nii sax du dugg puudar dañ koy nangu parce que seetu bee tax arme bi. mais pétard moom xam nga mënuñu ko tere parce que pour supporter yi la pour kii. Mm. mais booy dañ ko sànni rek après mu dal waa ji fii. Mm. mais xala dara bu demee bay rey est-ce que aajowul aay. non mais déggoo loolu laa wax quoi. déggoo ñoo bokk. li ah. comme na nii. dootul duggaat ci làmb xanaa xamoo loolu. loolu moom ah, ah. moom loolu moom lu leer. gars moom lañ kii damay jël Abdou. mi nga xam ne moom moom moom moom il est toujours ci terrain bi moom Abdou moom chaque jour mu ngi ci terrain bi mu wax ñu euh, situation bi bi nga xam ne moo xew. ci këru ki faatu Abdou ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu baax baax Alioune. Hmm, yaa ngi ànd rek ci euh, Feeling Dakar topp ka donc euh, bëggoon nañu xam yan information nga ñu mën a jox ci ki nga xam ne moom moo euh, ñàkk bakkanam démb ci komba bi ndax dem nga këram tey am nga lu bari luñ ci mën a wax. Hmm. dëgg la dëgg la maa leen di nuyu di leen ziar ñëpp yéen waa topp ka. Hmm. di nuyu jëmboor yi ak euh, ndéyge yi. yeneen mm-hmm. alors ni xew na Pikine. waaw dama àndoon ak euh, Ali def fa reportage. Mm-hmm. bi ñu metti na daal maanaam gis ba fa am jooyloo bi. Mm-hmm. leen laajee na leen affaire bi nu mu demee parce que dafa am ñu naan policiers la. am ñu naan la. mais ñoom lu ñu xamal mooy que ni. waaw supporters yi ñoo ñoo sànnante ay pétard. waaw léegi nag mu dal waa ji ci fi nga xamante ni moom mooy ci pout bi. Mm-hmm. loolu la ndéygee wax léegi. Mm-hmm. léegi loolu moom moo ko mujjee looloo ko mujjee étouffé. Mm-hmm. ba mujjee ñàkk bakkanam. après ko. waaw. alors léegi bu leen laajee. ñu ne leen naka la nuñ mën a teree estaat almet ak cigarette ak briquet di nangu ay pétale di dugg ci ci ci ci biir ah, estaat bi. question la. Mhm. ñoom ñoom seen ay mbokk ñoom question boobu lañ la laajte. d'accord. Mhm. muy question boo xam ne xëy na CNG danañ ko danañ ko tontu. Mhm, mu nekkoon daal affaire bu tiis bu doy waar daal te te duñu xamante ni xale bi ndeysaan. dafa amoon jom di liggéey. Mm-hmm. ni ko maamam waxee. Mm-hmm. Euh, <clears throat> aussi nekkoon ki nga xamante ni yaakaar la woon ci famille bi. Mm-hmm. ñoom ndeysaan ay chrétien lañ ñoom xamal nañ ne euh, xale dafa bëggoon Serigne Touba da daan déglu sax ay alxuraan. ndeysaan. waaw boo bëggee dégg daal affaire yi man mënuma ko expliquer lépp mais doy na waar. metti na aussi diis na daal. Mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax abdu ci information yooyu uh-huh. yow toujours yaa ngi ci terrain bi lu xew lu ne yaa ngi indi ci Feeling Dakar donc ñu ngi lay gërëm mm-hmm. merci jërëjëf kooku mooy abdu mm-hmm. borom terrain bi ak bëgg terrain bi uh, doom la ci Papa ngañ jaay ndax baayam ak Papa Ngagne Ndiaye ñoo bokk ndey ak baay seen baay yi ñoo bokk laa bëgg a wax. Mhm. bu Kunta mooy maamam Abdou sa maam jooju yàlla na ko yàlla sàmm. Euh, donc ñu ngi koy gërëm bu baax gis nga loolu la wax ci kii bi li nga wax la confirmé donc police yoonam nekku ci. Mhm. mais question bi ñu posé ma ay mbokkam posé ko itam am na solo mooy naka lañuy ñuy teree li nga fi lim yëpp ne dañ koy tere ci stade bi. waaw loolu tamit question la nan lañ mën a def ba briquet ba taal aussi te dañ koy nangu ci bunt bi. waaw kon nan lañ mën a def ba briquet dugg. loolu tam question ba almet dugg. Mhm. ba taal pétard. loolu tam police mën na ci ubbi enquête. te bu ci ubbee enquête dana ci euh, génne. Mhm. lépp loo xam ne jamuj la ci biir yëf yi ba loolu am mais tam ñi seq làmb ni ko Jimbori di waxee chaque jour na ñuy xalaat ci liy ñoŋal làmb ji. Mhm. nañuy xalaat ci li koy defar. Mhm. nañuy xalaat itam ci liy tax lii mën koo sori benn bakkan bañ cee rot. def ci def donc mu ngi noonu. boobu Serigne ñu jeexal suñu topp kaa ndax kay yi nee na papa pëng ah, jox leen dig daje ci beneen jotaay boo xam ne moom lañuy tënkaat jeudi incha allahu rabbi ah, bu la neexee mën nga cee def. sa safa saqiima nafal alima xaadal xalima ilan najaa'i saa boo ko tuflee ci ndox ñetti yoon naan lu la metti woon dina daal di nu mu tëddati euh, dañuy jeexal kaa bi topp kaa bi ndax kaa yi jeex na yi ñu amoon ci ay kaa yëpp c'est épuisé ah tey moom jimboori jimboori moom tey bopp bi moo ko xaw a nu mu tuddati hmm. léegi moom ruube la fi nekkee woon mm-hmm. ah. ah ruube la fi nekkee waaw ah. mais ya yow mi ko bëggoon taal si micro yow mi ko bëggoon may xarum tabaski may ko ko dégg waaw. bëggoon may xar tabaski. waaw Ndeye dafa ko bëgg may xar tabaski. ko la bëggoon may xarum tabaski mais xam naa ne da ko doon mujjee bàyyi de mais may ko ko rek dégg nga. may ko ko. Eh, Ndeye Gueye maa ngi lay gërëm bu baax ci eh, ñëw gi nga ñëw ci topp. di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak su fekkee wax nañ fi benn wax bu rek ñu ngi jégalu ñëpp di gërëm ñu doon seetaan ñëpp. ñu nekkoon mm-hmm. ci commentaire yëpp képp ku bàyyi sa yitte rek toog di seetaan. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm. Mm-hmm. Ah, di wax euh, euh, euh, président Macky il faut gars yi wàññi yëpp waaye dund gi ndax tabaski bi affaire dëgg na il faut nga il faut ñu wàññi dund gi ñaan ñu ngi la koy ñaan rek il faut dund gi ñu wàññi ko ngir yàlla rek war a suuli nañu wàññi dund gi wàññi affaire parce que metti na trop. metti na trop ci borom kër yi. léegi da surux. ak ngoog ban bi la wàccee. métti na trop ci borom kër yi. Mhm. ñuy ñaan rek nga wàññi mhm. dund gi métti na trop. peut-être tamit booy yi loolu xale yi looloo leen gën a métti moo tax ñuy génn di marché moo tax ñuy génn di def na ko su dul parce que dund bi dafa métti ñu ngi lay ñaan rek ngir yàlla rek boo ko mënee wàññi nga wàññi ko métti na trop trop trop. di ñaanal première ma Marème fay Sall yàlla sa jàmm yàgg ah, di ñaanal sama sama xarit ba sama waaja Alaaji Mam buy Jaaw chéri mama Diadio bàyyi seex yi bàyyi badu yàlla nga am jàmm le maire de Kolda directeur impôts et domaines yàlla na sa jàmm yàgg. Mhm. ay soxna Aïda Saliou ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. Mhm. di nuyu fallu Touba lan. Fallou Seck. Fallou Seck Touba Xayra Touba Xayra. Touba maa ngi lay mhm. gërëm bu baax a baax a baax. di gërëm ñëpp waaw di ñaanal ñëpp jàmm. di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di baalu ñëpp ak di wax jërëjëf borom Touba. jërëjëf Serigne Fallou. yàlla na jàmm yàgg. amiin. Ah, kii Aliou. Hmm. ñu ngi nuyu bu baax euh, sëñ ab laxat kemaan hmm. borom Kéemaan. waaw borom kemaan ñu ngi koy nuyu bu baax. Hmm. wax dëgg yàlla di ko wax euh, ni muy liggéeyee nii na jàpp foofu parce que nit ñi soxla nañ lool muy def di ko def tamit ak dimbale di ko def ak dëggu. may nuyu tamit sëriñ Góora Njaay Serigne Gora Ndiaye. waaw parce que waa ji gaa yaa koy xam quoi. Mhm. Serigne Gora Ndiaye. Mhm. moom tamit fajkat la te jàmbaar la yaa ngi dégg. gis nañ waaw mhm. gis nañu. nim ni koy defee. yaa ngi dégg. Euh, mooy nuyu Al Amin bu baax yaa ngi dégg du nuyu sama waa ji parce que sama doom dafa nekkoon euh, tuubaa di jàng. mais bu ñëwee daf may wax ne ma benn maire moo ma yore parce que man maa jël sama doom yóbbu ko daara parce que xam nga la dama jaaxle nan laay def ba mu am jikko ma ni garaawut naa ko jël sànni ko alxuraan bi ma demee bu ñëwee nag daf may wax benn maire moo ma yore maire bi ndekete yaayu Mara Niass la moo doon yore sama doom xaw ma ko woon après laa ko xam kon Mara xam nga leneen la ko mun naa wax sama rakk la comprendre ngi ni mu la wax waaw ku baax la yaa ngi dégg. xaas tamit sama waay la yaa ngi dégg mais àddina amul solo gis nga coow yi yëpp ngay gis Aliou mm-hmm. ci dal lay mujjee parce que gis nga nañ bàyyi xel bu baax ne ñun njëkkuñu ci àdduna duñ fi mujj mm-hmm. du dëgg lépp lu waay di def na ko seet ba pare lépp looy def na ko ak jaamu yàlla lal ba pare nañ bàyyi di toroxal jigéen si dëkk bii mm-hmm. nañ bàyyi tamit bakkan yi rot sànq kii dafa wax ne booy dañ génn dañ xiif nangam nangam du xiif mooy rey booy yaa ngi dégg dafa am gis nga dara bu ko nit di def nit bu dee dañoo damm loxo bi bul xool damm-damm bi xoolal li mu def bañ damm loxo bi sinon waa xaaral just a moment xaaral sinon yow dinañ dammaat beneen loxo réew mi booy yi yow xam nga ni booy xamuñu dangay gis booy buy sàcc quarante mille bàyyi fa neuf cent mille mm. gis nga artistes yi nañu woy rappeurs yi nañu rabaat waxkat yi nañu yee booy Aliou am na jigéen ñu bëri nekk ponkal yi mag jëm ni ñuy sëyee sax xamuñu ko am na góor yu nekk ci kër yoo xam ne xamuñu sax ni ñuy jàppee seen jabar yi Aliou gars yi nañ ñu dimbale ci plateau yi di ci boole wax yooyu jigéen ñi mën a yeewu waaye ñëw naan maa yor sama papa maa yor sama yaay tey jigéen te yoroo jëkkër yooyu jaroo roy diwa ma solal ak diwa ma lii diwa ma laa Aliou loolu nañ ko bàyyi xel man nag tey. maa ngi gërëm bu baax sama grand Abdou Aziz Sila bu baax mooy gërëm ñoo xam ne ñoo juddoondoo sam-sam ngañ njaay maa ngi gërëm bu baax ngañ yaa ngi dégg ak maam Mor Jibril Ba yaa ngi dégg Nuuxu Balde yaa ngi dégg Mos Saaxo sa Badiane yaa ngi dégg Assane Fall Jili Fall yaa ngi dégg di gërëm waa sam gépp ak ba sam-sam ak Pape Ba ñooñu noonu ñoo juddoondoo sam-sam yaa ngi dégg ñu nekk suma maas ak Pape Ndiaye Pape Ndiaye jàngalekat la Abdourahmane transitaire ñoo ñëpp ñoo judoondoo lu bari duma leen tudd ak équipe bu jàmm réew bépp wax dëgg yàlla ak far ak farba mais Alioune il faut nga gërëm waa Allemagne yi waa France yi mm-hmm. waa Mali mm-hmm. waa Mauritanie waa Maroc hmm? il faut nga gërëm leen waaw ñu ngi leen di amuñu seen fay ñëpp amoon nañu Feeling Dakar ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu fas yéene naka ñaanal suñu suñu xarit suñu rakk ji Wally Seck ñu koy ñaanal fële Bercy Ousgard fële ca Allemagne bu ko kenn raté na ñëpp wàcc ñu wax félicitations encore à notre papa Youssou Ndour di la ñaanal jàmm ah di la wax félicitations félicitations encore papa ci Bercy bi félicitations félicitations yow. référence nga yow idole nga ci réew mi yàlla na yàlla defal jàmm mention spéciale. xam nga lu may hmm. wax Aliou. Euh, musique nañ jàppale musiciens yu ndaw yi jàpp ñun nañ jàppalante ñun sénégalais yi Bob Marley fi musique reggae aksi moo ko fa indi suñ demee ba lëkkati bi fekkewul Bob Marley de. mais muy way naan nobody can stop reggae nee na kenn mënul arrêter reggae. parce que kon ki ci jiitu xam nga. ku ci jiitu dafa am nu mu ko deferee yaa ngi dégg wax naa la bi mu demee Amérique dañ ko fa tëj bi yaayam di ba mu dellu ñibbi bi muy ñëwaat di way si yaay ji dana kii lan lay woy bi mu ñëwee woy ba pare si la jëndal kër googu yaayam te xam nga lu tax américains yi respecté ko bi muy ñëw Jamaïque yëpp ñoo topp ci moom xam nga tubaab bu fekkee Wally Seck day départ ñun ñëpp di ci wax tubaab yi dañuy ñëw gëstu ji ko gis nga mbir soo ko amee dooleel hmm. yaa ngi dégg nañ dooleel woykat yi yu ndaw yi ñu jëmale culture ci kanam ba pare nañ leen conseiller nan lañ ko doon defee parce que ca mboxoo ji bëri na trop yaa ngi dégg. Mhm. waaw di fecc ba mu neex la nga ñëw di way fecckat amatul ngay woy ba mu neex la ngay fecc yooyu noonu la ñu war a bàyyi yaa ngi dégg taasu na yem ci taasu fecckat na yem ci fecc yaa ngi dégg loolu moo nice ba pare nit day dem nekk artiste re rayante fii ba ñëpp xam ko mu dem fenn de ay nit des fi bu koo yàq ci làmmañ nañ bàyyi yàqante bi jàppalante loolu rek laay wax man. d'accord na ma ñëpp baal àq nag man nag dañ may wax rek damay def jàngat man loo ma wan. damay analyser rek. ndeke ndeke yow ko foofu waaw. Ah. Hmm? Euh, en képp ku nekkoon ci commentaire yi ñu gis laa ak maa gërëm waa Europe yëpp. ñu nekkoon ah. ci commentaire. di leen gërëm bu baax a baax. del dégg